Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeune les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps d'un prescrivait un jeune sacré, annonçait une fête solennelle, réunissait le peuple, tenait une assemblée sainte, rassemblait les anciens, réunissait petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront, Pitié Seigneur pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise, Où donc est Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. ta grande miséricorde, efface mon péché. képp koo dajal ak moom mu laaj la ndax wóor nga ne ko waaw tey moom wóor naa parce que yéen dañ leen ne yéen chrétien yi doo leen wóor ni ñeneen ñi loolu tax boo leen wóoree da ngeen di wóor ni ñeneen ñi suñu koor du loolu suñu koor wóor juntukaay la bi nga xam ne mooy tax ñu dellu fa yàlla mooy tax ñu convertir loolu tax mooy tax ñu jógee fa ñu nekkoon parce que léeg dañoo xamul ci lu ñu nekk dañoo xamul fu ñu jëm dañoo xamul lan la ñu tekki ci àdduna si dañoo xamul lan la ñu tekki ci suñu Sénégal gi léegi revenez à moi de tout votre cœur s'il vous plaît revenons à Dieu nous tous convertissons-nous Revenons à Dieu nos hypocrisies. Revenons à Dieu nos mensonges parce que dëkk bi dafa bari fen ku nekk a tagal rek tagal ci net bi moom ku nekk di bu ñu nekkee xale dañuy naan ku nekk di meew rek di wax lu ko neex ci net bi ay fen ay kàcc Revenons à Dieu, abandonnons le mensonge et revenons à Dieu dans la vérité parce que si on veut revenir au Christ, le Christ est vérité, il est chemin et vie te bu ñu naree dellu si ci dëgg la ñuy dellu revenez à Dieu en abandonnant tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est adultère. parce que daf fee bari daf law ñépp laa koy waxal nag ñépp ñun ñépp ci lañu bokk nañu bàyyi njaaloo fu mu mel ni dafa xew ci temps yi revenez à Dieu revenons à nañu tuub bàkkaar nañu tuub bàkkaar te loolu itamit buñ ko dee def suñu diggantale ak suñu yàlla suñu diggantale ak Krista bi du yoonu kenn kenn yoonu kenn nekk si bu ma kenn laaj ma génn fii dama laaj mon père ndax woor nga lu ci sa yoon sama koor ak yàlla lu ci sa yoon sama ñaan ak yàlla lu ci sa yoon c'est dans le secret de notre cœur et Dieu qui voit dans le secret, il nous récompensera. Mais tant que nous faisons la publicité de tout ce que nous faisons, nous ne serons jamais récompensés par Dieu, mais par les hommes qui nous applaudissent. Mais ce n'est la récompense de Dieu. nañu génn ci suñu pax yi ñi nga xam ne ay chrétien sous-marin lañu nañu génn ci seen pax yi bu leen xaar koor bi dong ngeen génn di oui Saint wax na ko dëggantaan wax na ko te muy dëgg c'est le temps favorable c'est le temps de conversion waaye bu jeexee tamit bu ñu delluwaat ngir yàlla ci suñu pax yi les chrétiens sous-marins les chrétiens kakata tey bari nañ fii lool ka neex nañu nag wax dëgg yàlla ñépp a ngi génn boo xamul fu ngay jëm dellu sil fi nga jógee muy ci yàlla muy ci diinew chrétien muy ci diinew katolik waaye nañu bañ a dellu itamit dëggam jamono koor dafa nekk jamonow entraînement bu ma entraîné wu ba jekk dama war a continuer waaye waruma delluwaat ci li ma nekk bu ñu toog naan damay confessé ci jamonow koor ba pare jamono koor bu ñu jógee dootuma confessé at ba mercredi décembre buy dellu siyaat Nous ne sommes pas des chrétiens de mercredi des cendres. Nous ne sommes pas des chrétiens de carême. ñun dañoo chrétien ñun chrétien lu bés bu nekk la chrétien lu Christa bi dañu Christa bi mooy suñu itte bés bu nekk. loolu laa tax ñu ne dellu si leen fa yàlla parce que yàlla moo la war a nekk suñu ite bés bu nekk jamonow koor dafa doon jamono yi nga xam ne dama war a taxaw tem ci sama kanamu yàlla di ko ñaan. di seddoo li nga xam ne moom laa am newul li ëpp ci man waaye li ma am mooy moom lay seddoo bu ma wooree itamit ngir ma dellu si fa yàlla notre carême c'est cela notre carême c'est revenir à Dieu c'est faire face à Dieu c'est nous convertir de tout Et le pape nous invite justement, pendant ce temps de carême, nous les jeunes et tout autre, de nous convertir justement sur le regard, des réseaux sociaux. foofu la ñuy fekk lépp lu baax ak lu bon rawatina lu bon parce que bu ma demee seetaan vidéo ki nga xam ne day fen dama koy gëm te man itamit damay fenaale ak moom barina na fii ku nekk gi a ngi a ngi lal temps moom bi suñu bi suñu dëkk bi jaxasoo ñëpp a ngay lal ku nekk bëgg na wax dëgg waaye dëgg gi kenn moomu ko yàlla moo ko moom dëgg bi Kirista bi moo ko moom te dëgg bu agsee dañ koy wax mu leer nañ ku ko bëgg ku ko bañ ndox yàlla dëgg la waaye yàlla itamit coofal la ci jamono koor dafa doon jamono ji nga xam ne jamono coofel la maanaam ce qu'on appelle l'aumône c'est c'est justement à cause de ma charité à cause de l'amour de Dieu que je donne amul ne may joxe di naan am yàlla jox la kii naan ngir yàlla du loolu du loolu saa su ma wooree ba suñ tey mercredi décembre bi nga xam ne koor gi c'est obligatoire pour tout le dama war a génne li nga xam ne jëfandikoo moo ko ma jox ko miskinu yàlla yi ki nga xam ne day toog du am njëgum añ c'est cela le carême n'est pas fait pour économiser toxkatu cigarette bi boo toxul cigarette bu fekkee ne paquet ngay tox nga jël njëgu paquet bi nga joxe ko nga maye ko ki nga xam ne amul lu muy añee amul lu muy jëfandikoo ak njabootam bu fekkee ni naankatu sàngara lañ te ñun te ñun chrétien yi dañuy méngale ak naankatu sàngara balaa may dee ñu naan man catholique laa damay naan ku leen ne catholique mooy naan sàngara man mi làbbe laa duma naan catholique du naan katu sàngara catholique n'est pas égal à buveur d'alcool parce que loolu lañu ñu foog dañu ne ñun dañu autoriser ñu naan kon mbokk soo bois daal na jeex tant que jeexul daal ñu ñu ngi fi c'est le temps justement de s'abstenir On ne s'abstient pas pour économiser. On s'abstient pour partager à ceux qui n'ont rien à manger. Nous, nous avons à manger et par sur quoi nous avons à boire. Une bière, ça coûte très cher. Voilà notre jeûne. Voilà le résumé de notre jeûne. les trois piliers qui nous ont donnés ay jumtukaay la c'est des moyens qui nous aident à revenir à Dieu de tout notre cœur la prière dans le secret de notre cœur l'aumône dans le secret que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite bul ko dem di faram faram faram fu nekk kii maa ko joxoon mercredi de Sane maa ko joxoon ci jamono ko boo wooree itamit bul dem di tuflit gars ci mbett bi naan man dama woor pour ñëpp xam ne danga woor ku la yónni ku la yónni yàlla santaanew la lool nga dem tuflit keneen ki ba pare nga naan damaa woor dama lekk ba suur sax loolu moo gën moo gën a neex yàlla kon goog sama gaay yi dugg nañu ci jamono ji nga xam ne jamono ju sell la dugg nañu ci jamono ji nga xam ne yàlla mu ngi ñuy xaar te di ñu xiir di ñu xaar te di ñu xiir ndax ñu dellu si fa moom ndegam ci moom la ñu jógee moom moo ñu sakk mooy suñu yàlla kon bokk nañu dellu si loolu la prophète bi wax revenez à Dieu

Aujourd'hui, mes frères et sœurs en Christ, ne fermons pas notre cœur, mais revenons à Dieu. Écoutons la voix du Seigneur. C'est le temps, le temps de carême, c'est le temps aussi de nous approprier de la parole de Dieu, de lire la Bible. am na chrétien yoo xam ne boo leen ne dañuy jékki ñi di citer lu ñu dégg waaye seen kër sax amuñu fa Bible amuñu fa Nouveau Testament dëgg la am déet leen ngeen yëkkati seen loxo parce que ñi fiy yëkkati seen loxo yem gëmuma leen boo leen amulee bii bu ngeen dem jëndi ko quinze mille francs lay jar bu dee ci weer bi da ngeen di dépenser quinze mille francs ci naanum sàngara jël leen xaalis boobu ngeen dem jënd bii la ndax ngeen commencé lu baatum yàlla di ko méditer su nekk defuma publicité biblique parce que baatum yàlla kenn du ko publicité baatum yàlla moom dong nga nekk dëgg ñu jënd ko bañ koo dëgg moo fi ne te du fi jóge kon boog nañu góorgóorlu ci jamono yi c'est le temps favorable c'est le kairos bu ñu nekk di jéemantel ne maa ngi jéem bu kenn jéem nañu soobu ñu ñëpp dem ba jeex jamono koor lañu nekk suñu koor nekkul ni nag ñeneen ñi dañu war a santi ñun ñu ñu ngi woor suñu koor yoonu kenn nekku ku nekk sa diggante ak yàlla yàlla rekk moo ñuy tiib yàlla rek moo xam lu ñuy def te yàlla rek moo ñuy récompenser ci lépp lu ñu def kon bokk na koor gi sell samay mbokk yi nañu góorgóorlu te xelum sellam yi dimbale ñu ci kooru

maintenant et pour les siècles des son royaume. C'est Jésus-Christ le roi des nations, c'est lui mon seul espoir en qui, par qui et avec qui nous serons sauvés. Ô Seigneur, de mes les et j'ai péché contre toi. qui pourrait tenir. de la paroisse Marie-Immaculée, Mère de Dieu, des Parcelles Assainies. Aujourd'hui, nous célébrons euh, le mercredi des cendres et cela a une importance capitale dans la vie du, de la liturgie chrétienne, d'autant plus que c'est aujourd'hui que nous commençons le carême dans l'Église. Et commencer le carême dans l'Église nous permet de nous rappeler notre signification, toute euh, euh fois cela nous rappelle notre finitude humaine. Nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Cela nous donne l'occasion de pouvoir nous remettre à Dieu, le maître de l'histoire et le maître de la vie. Cela nous permet de revenir au Seigneur comme l'appel de Joël que nous avons entendu aujourd'hui dans la première lecture, revenir au Seigneur de tout notre cœur dans les larmes et le deuil. La cendre euh, nous rappelle euh, quand tout est consumé ce qui resterait, mais cela nous rappelle également le grand feu. pourquoi ce renversement de ce grand feu de Pâques mais cela nous rappelle également cette cendre qui est cette possibilité de pouvoir se convertir afin d'être radieux avec la lumière de Pâques. C'est cela la signification qui rappelle le baptisé qu'il doit s'humilier devant le Seigneur, s'anéantir, se faire petit dans la prière dans le partage et dans le jeûne. Voilà toute la signification de la symbolique de la cendre qui nous permet désormais de rentrer en relation avec Jésus et de pouvoir marcher pendant 40 jours en vue de la lumière de Pâques avec laquelle nous allons resplendir en sainteté en Christ. La pénitence, euh, c'est la réconciliation avec soi-même et avec Dieu. Et la pénitence part du mode, du fait que la personne est appelée à faire la contrition. c'est-à-dire devenir une personne contrite, devenir une personne capable de s'humilier devant Dieu et de demander pardon et de confesser ses péchés. C'est un temps de réconciliation avec ses frères et sœurs, c'est un temps de réconciliation également avec Dieu notre Père. C'est cela la pénitence, c'est cela la réconciliation, parce que cela signifie encore cette symbolique de la petitesse de l'homme, de cet homme qui s'humilie comme la cendre et se rappeler euh, que cette personne n'est rien sans la grâce de Dieu, sans la miséricorde de Dieu. L'aumône, c'est le partage. L'aumône, c'est cette dimension qui nous rappelle et qui nous met en relation avec nos frères et sœurs. Aujourd'hui, l'aumône, c'est le partage. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore réaliser notre relation avec Dieu sans pouvoir la réaliser avec notre frère et sœur. Alors euh, cela est d'une importance capitale de nous rappeler le partage parce que cela non seulement nous met en relation avec l'homme, mais cela nous permet davantage de comprendre que nous devons être solidaires avec les personnes les plus démunies et cela s'intensifie dans le partage qui vient traduire cette relation et ce signe de conversion. Le comportement du fidèle laïque euh, repose sur ces trois piliers du carême que sont la prière, le jeûne et le partage. Et cette dimension d'abord de la prière, et que pendant 40 jours, et non seulement 40 jours, nous nous exerçons davantage à être un peu plus réguliers aux exercices spirituels, mais davantage à être beaucoup plus proches dans la prière avec Dieu et avec nos semblables. Et le deuxième pilier qui est le jeûne, c'est que c'est dans la mortification que nous ressentons le besoin de la grâce de Dieu dans notre vie, à travers la faim éprouvée, à travers ce que notre cœur et ce que notre corps corps, le sang, nous puissions aller à la recherche de Dieu qui se fait proche dans le silence. Et effectivement, comme je l'ai dit, c'est dans le partage que nous nous rendons solidaires les uns avec les autres. C'est dans le partage que nous essayons de mettre en pratique ce que nous vivons intérieurement et que nous tentons d'extérioriser dans l'amour qui se concrétise avec des gestes concrets que sont le partage. Et ñu ngi xumbal àllarba wi doomi te ci jàngu kerceen euh, tey lañu tàmbali woor woor woowule euh, sukkandiku na ci ñett fan yoo xam ne ni fan wu njëkk bi mooy euh, ñaan bi ñu war a ñaan ñaareel ba mooy woor bi ñu war a woor ak xaajale bi ñu war a bokk ak néew si doole yi loolu moo tekki kooru kerceen te ñeent fukki fan a ngi nii dinañu jéem a dox ci ay ñaan ndax jublu ci paak ju sell ji te ci noonu lañu ànd ak Yeesu Krista dekkaliku bu ko defee ci waxtu yooyule ñun itam chrétien war nañoo xoolaat suñu bopp suñu dundinu chrétien ci jamono koor gi le ndax li le mën ñoo dim mën ñoo dimbali ndax ñu gën a jege yàlla waaye mu dimbali ñu itam ndax ñu gën a jege suñu moroom waaye gën a xootalaat suñu dundinu kerceen ci ay ñaan te ñu mën a gis ci suñu bopp gannaaw ba ñuy xumbal dekkaliku Yeesu Krista suñu borom